juge bi génn rek ne voilà tuumaal ñu tuumaal ko d'appel bi en particulier man ci ay dossiers yoo xam ne euh, dañ ko doon luubal euh, mu nekk lu métti métti suñu njaboot euh, boo xoolee suñu jaar-jaar xool xool ak ñu def ci magistrature ñëw ñoo ko toll fii benn xale jóg tuumal la loo xam ne kenn xamul lan la te lim lay tuumal moom li ci gën a yéeme mooy amu ci benn dossier bu mu diir amu ci benn dossier bu mu xam amu ci benn arrêt bu mu liir

ñu ko andi fi c'est déjà distribué. ah ah d'accord ñu ko andi ñu àtte ko condamné ko dundam ndax def mooy nit ki du du dossier mais dossier bim bim sama loxo ma xool ko dama gis def du du crime c'est-à-dire que dag tank nit mënut a nekk de barbarie euh, dag tank nit loi bi dafa mën ko oyé moy ñàkk ñàkk wormaal nit ku dee noonu lañ koy waxee suñ suñ suñ jargon ñàkk a wormaal nit ku dee moo mooy fekk nit ku dee nga dagg tànkam wala fekk nit ku dee ñu suul ko nga sulli ko loolu ñu woowee ñàkk wormaal loi bi mu ngi ko puniree maximum benn ati kaso benn ati kaso waaw ki nga xam ne loi bi daf yow li nga def yow benn attikaso la cour d'assise bi ñëw yow condamné la sa giiri dund pour loolu man ba may gis dossier bi pour di si jóg fekk na moom mu def juróom-ñetti at ci kaso bi alors que loi bi mayutoon ñu condamné ko lépp benn at kone condamné ko giri dundam ba pare mu def juróom-ñetti at ci kaso bi maa sol sama rob man ma sol sama rob dem génne ko ci kaso bi ça c'est ma responsabilité. Oumar boo yoroon sarax tey dem di ko saraxe romb ko donc naa góor gi am yàlla jox la jàmmal la dëkk. man jamal dama koy deug rek ne deuk deuk diine la musuma fa dem xawma fa mbokk xawma fa xarit xawma len leen xaw nuñ sant xaw ma nuñ tudd dossier bi moom boole ma te dossier bi tam dama ci tomber rek xana kay yalla mo def ma tombé ci muy chansam ma sauvé ko mais dossier bi bu jaron fam fam wara jaar man du ma ko teg ba xam nga man en tant que premier président chambre bu ma neex rek ma présider ko man en tant que premier président chambre bu ma neex ma top présider ko président bu toké bu naa ko ne suba may monté audience da ngay noppi rek su ma neexee ma def le conseil su ma neexee ma jël sama conseil ñu ak ñoom premier président loi bi moo ko wax chambre bu ko neex lay présider bi mu amee ay jafe-jafe pour ñu libérer ko maa ne gis nga kii maa jël sama responsabilité kii man maa koy génnee kaso bi man Ousmane Kane maa ko wax man dinaa dinaa ñëw bas at yi ma toll gis nit koo xam ne yow la nga def benn ati kaso lañ la war a condamné non seulement ñu condamné la sa giiri dund mais nga def ci kaso bi juróom-ñetti at kii la condamné moom bu ngoonee mu mu fanaan ak jabaram fanaan ak ay doomam yow ñu bàyyi la ci kaso bi juróom-ñetti li mu def ñaaw na bokkul ak sunu sunu diine bokkul ak sunu civilisation mais loi loi loi la ne ku ñëw fekk nit ku nga jël ci moom dara wala nga laal ci moom dara benn ati kaso la moom ko giiri dund giiri dund ci Lamine Sène Lamine Sène de benn waaye foo naa la ma ko yoroon xaalisam daw waa ji ñëwaat ci dëkk bi ñu ne ko ñëw na mu ànd ay nit dem kar ko d'après euh, daal dossier bi ñu jàpp ko dem moom kawoon waa dañ ko fa téye ko dóor andi certificat médical certificat bi mu andi benn euh, benn médecin signé ko waaye euh, Lamine Sène bi mu ko téyee 10 ci guddi ca suba ga 10 heures daf koy bu police muy muy fukki waxtu wala fukki waxtu ñaar te loi bi daf ne effectivement bu fekkee ne da nga arrêté nit son gré forcé ko téye ko loolu dañ ngay atte comme ku atte ku rey nit loolu wax ci article bu article bu njëkk bi mu dem nag ba ca kanam mu ne waaye yow mi ko arrêté soo ko bàyyee ak sa sago te enquête amul ki nga jàppoon nga bàyyi ko au lieu mu nekk affaire u ku nit dañ lay dañ lay atte rek comme affaire u délit manam dañu bëgg ki nga xamné dafa arrêté nit ki bu démé ba xélam dalat bu bay nit mu dem motax ñu defal ko encouragement boobu né ko légui yow bu fekkee né yaa ko arrêté normalement dañ lay atté comme ku rey nit waaye soko bayé ci diir bu gàtt dañ lay atté comme rek def infraction normale Lamine sen fo na né waji mu ko mu ko té fukki at fukki waxtu ak ñaar tout simplement donc dafa duggoon ci deuxième branche loi bi c'est-à-dire fi nga xamné mom dafa am bonus bonus bi moy dot nek affaire criminelle dafay nekk affaire délit donc liiral naa leen loi bi sànq donc ci ci ci loolu la ñu wàcce dañ am yoon man siège laa nekk maay chefu siège bi kii parquet la nekk mooy chefu parquet général man mun naa soxla information ñëw ci agent am ne ko wan ma lii mu wan ma ko wala mu tax ma décidé bi ma xool ko waaye li ma amul droit mooy ñëw dugg service am jël ay ay ay ay dossier di ko liggéey te tàgguwu ko te moom loolu la def lam lam fa lam fa doon liggéeyanti sax mënu xam parce que ci dossier Omar Gueye bi mu doon liggéeyanti dossier bi président bi ko àtte woon moo ko téye juróom at bindu ko di dem Dakar affectation balé dossier bi ben at la ko téye juróom ben at la téye dossier non seulement bindu ko mais day dem Dakar affectation balé dossier bi ministère moo woo inspecteurs yi yónnee yóbbu fa yóbbu fa yóbbu fa euh, président bi. ñooñu menacé ko pour poursuite pour que mu bind dossier bi andi ko wax wax yëpp foofu la nekk.